amis respectateur de Leral TV et de Leral point net nuyu nañu leen comme nun koy defee rek tey nag dañoo wàcc fi nga xamante ni moo di côté grande mosquée bu Dakar ginnaaw bi fi coowal uh, góor jigéen amee dox ci benn xale boo xam ni fukki at ak juróom la am ab waaye rek daal di koy nax daal di koy tëddee mu nekk nag mbirub góor jigéen nekk nag la nga xamante ni mu ngi bëgg bari jamono ji looloo waral naka ñu daal di wàcc dékk suñu micro askan wi fi fare ngir ñu joxe seenub jàngat ci mbir mi le mbirum góor jigéen nag li ko gën a yokk du lenn lu dul perdre le fait de perdre nos valeurs traditionnelles ñun sénégalais lañu dañu am ay aada ak ay euh, jëfin yu bon yoo xamante ne ñun xamuñu ko woon fii suñu réew tubaab yi ñoo ko fi indi par le biais des réseaux sociaux ñu yàq ci suñuy ndaw yàq ci suñuy doom yi ci ay coluwaay yeeg yëpp colo gi baaxul euh, euh, nekkin bi baaxul comportement yi baaxul te contrôle bi ñu doon am ci xale yi amuñu ko. léegi nag dellu ci diine moo fi sës chrétiens yi nañuy yar seen doom yi ci église bi musulman yi nañuy yar seen doom yi ci jàng yi parce que loolu phénomène la boo xam ne benn diine nanguwu ko Sénégal nag ñaari religion ñoo ko seq muy de bon musulmans et de très bons chrétiens loolu la ñuy dund cay membre léegi ñun góor jigéen xamuñu ko woon bu ñu ko gisaan ba ñuy xale sax dañu daan tiit topp ko muy daw léegi nag dañu dem ba def ko vice boo xamante ne secte la xaw ma secte la xaw ma vice la te nguur gi nag dañ ci am responsabilité boo xam ne xaw ma dañoo gëm xaw ma qu'est-ce que ça passe leen neexoon dana fi dañ ndax xam nañ fa ñu nekk xam nañu bu doon kuñ ci jàpp tàllal sa ndigg ba nga normal sanctionné la comme nañ ko daan def bu njëkk dóor koy xeer buntu xatal ko ku ko gis sab koñ nga dénoncé ko ku ci gis kenn sa kër kuy def yi fi góor jigéen wala di ko nuru nuru lu góor guy sol ay tubay xotti ko ba mu xottee ko jigéen joo xamante ne day sol ay yu bon mel na mel na góor di góor jàpp boppam def ko comme jigéen di diwoo yu kenn xamul père de famille ñoo ci am seen responsabilité sa boo ko nekkee sa doom bu boo ko amee sa doom jigéen mu am yenn comportement yi da nga war a jël say responsabilité bu ci bañ ku la ci xeebula be mais toog fi naan droit de l' enfant droit de la femme droit des gosses gis leen ñu nekk épanouir nu mu leen neexee loolu moo indi problème yi nañu dellu ci ressource yi dellu ci jukko yi dellu ci valeurs yi tant que defuñu ko dañuy force ñu bopp ñun duñu ay tubaab duñu ay américain duñu ay français ñun ay sénégalais lañu dañu am suñuy valeur dañu am suñuy aada am suñuy cosaan lu ñu xam buñ ko perte nag perte nañu lépp tubaab bi na nekk tubaab sénégalais nekk sénégalais ñun xamuñ ñu ci ay affaire ñàkk fayda yu fu góor jigéen yooyu waaw buñ leen nañ leen dénoncé te kuñ ci jàpp nañ la sanctionné sévèrement tëj la def la lu metti lan moo tax duñ ko def ci réewu naar yi xanaa Sénégal lañ yàpp bu tubaab yi ñëwee lu leen neex ñu signalé leen waaye góor jigéen moom na leen leer na fii doo leen fu ma a am jàmm dinañ leen traqué dinañ leen chassé dinañ leen poursuivre te vous serez sanctionné sévèrement bu ko nga état bi deful population bi dina si jël seen responsabilité. li ko may doole du dara lu dul alal rek alal dong moo ko dolli te alal moom fii rek la yem demul fenn du tee dee te du tee def leneen. faj soxla dong lay jariñ léegi nag alal jooju nag léegi ñi nga xam ni si ñooy njiit yi ñoo war a taxaw ci loolu teg ko ci yoon li ko gën a mettil bu fekkoonte ni boo feebaree da nga mën a faju boo bëggee jàng-jàng doo am benn problème waaye gannaaw alal ji nekk ci réew mi gars yi dañ koy séddoo def ko lu leen neex duñ ko def fi ñu ko war a def lu mel noonu nag ñooñu buñ ñëwee dañuy mën a am doole loolu bokk na ci li may doole. kaa jur doom doo ko toppatoo doo ko jàngal diine yow jàng alxuraan bii nga xam ne si ñuy coow daara yi daara yi te loolu faratal ci ab jullit te am na jullit yoo xam ne jàpp nañ ni farata eh, jàng alxuraan du farata ci jullit te ab farata la nit ki bu jàngee alxuraan ba xàmmee ay farataam ak ay sunoom am na yoo xam ne bu ñëwee du ko mën a yóbbu. te léegi parents yi léegi ñoom nasaraan bi rek lañu gis ak di topp ci langue jàmbur yi di jàng rek bàyyi seen aada seen cosaan loolu bokk na ci li ko waral. non xale yi léegi dañoo dem ba léegi amatuñ ku leen yilif ñu yilif seen i bopp loolu moo bari ci dëkk bi dangay gis ñoo xam ne seen i parents yi nekkuñ fi sax ñu ngi aw village ñu ngi dëkk bi mais ñoom ñoo Ndakaaru bëgg a tay tay mu soti te loolu mënul nekk dara xëyu sotti tep tepp li suñu fal dara tepp tepp gën ñu rek nañu jàpp takk ndigg yi rek bàyyi kaala gi ci ndigg li jàpp liggéey loolu ku ci saxoo rek jàmm ngay am te di nga am wërsëg bu soobee yàlla. parents yi veillé ci seen doom yi bu baax a baax a baax te xamal leen ni maanaam yëf yi moom fi mu toll mi ngi fépp ba ci biir kër yi sensibiliser leen gën leen a dolli di leen ñaax rek loolu daal laa ci dolli. tey tey te kilifa yi tamit di wax ak maanaam ñi nga xam ne ñoo ŋànk réew mi ñu gën a ñu gën a maanaam veillé ci loolu nag gën a dolli sécurité bi. à chaque fois ne parents yi dañuy toppatoo seeni doom yi. di leen jàngal lu bëri ci àdduna parce que jamono ji boo xoolee ñu sommes en vingt et unième siècle lu bëri dafa xew jamono ji loo mosul dégg ngay dégg jamono ji boo xoolee li gën a yées ci àdduna xaj ak xaj sa lu ñu sayante ñaari góor ñaari xaj bu góor a xaj bu góor lu ñu sayante kon ñun ñi nga xam ne suñu borom ñun la gën a fonk gën ñoo suturaal nañu yëg suñu bopp bu baax delloo yàlla cër googu pour ñu delloo te xale yi lu leen dugal ci li yëpp ñàkk bañ a liggéey la rek bu nangoo liggéey rek lu bari da koy jom te am jom te am ful la. mu ko mu mel ni lañ ca mën a noté ci seenu kàddu moo de responsabilité partagée lay doon ci diggante gone yi ak parents yi waaye tamit ci diggante askan wi ak ñi nga xamante ni ñoo yore suñu justice ba tax na naka ñuy sàkku rek ngir ñu gën a ñoŋal li di visilance bi waaye itam justice def yoonam ba ñu dammalaafu ñi nga xamante ni ñoo di góor jigéen ñi ci mim réew.